27e édition de la foire internationale de Dakar fii ci CICES ñu ñëw encore une fois enquête 221 ñëwal leen tey fii ci foire bi fas yéene leen génnee lépp léegi nga xamante ne moom mooy ambiance fii ci foire on a l'habitude à chaque fin mois de décembre dañuy am foire foire bi nag lépp dafay nekk dafay am ay marchandises dafay am ay produits locaux dafay am aussi tamit ay produits yoo xamante ne dañ koy jéggaani bitim réew mais dafa am benn boo xamante ne dafa particulier ci wàllu foire muy ambiance ambiance ci biir foire ñu tàmm di ci gis des artistes comédiens yoo xamante ne on a toujours l'habitude de les voir dans nos petits waaye nag dañuy dem def li ñuy wax wàllu proximité mooy dem jege leen indi leen leen ba ñu gën leen jege am na ñu bëri ñoo xamante ne ñoom ñooy animé stand foire yi ñoom tey ñooy neexal li nga xamante ne moom mooy foire bi di attirer nit ñi ba tax nit ñi di ñëw tey ci biir foire bi ak mbégte dañu bëgg dugg ci biir jëlal leen artistes yooyu fi nekk indi leen ambiance foir wante tamit ñu leen di wax ni duñ fi yem tey dañuy ñëw pour jël ambiance foire mais dina am beneen jour boo xamante ne buñ fi ñëwee li ñuy jël moom mooy li nga xamante moom moo composé foire waaye nag yéen a ngi ànd ak ba tey enquête 221 le chemin de l' information muy seen site internet bi nga xamante ne xeebul dara bàyyiwul dara moom moo leen di indi lépp loo xamante ne soxal na leen yéen waa askan bi donc ñu àndandool dugg biir foire set ambiance yi nga xamante ne moom am ci biir internet enquête 221 ñoo ngi fii ci foire internationale bu Dakar kii nag mooy Moustapha Moustapha moom mooy xoromu foire ku yàgg ñëw foire xamee nga Moustapha mu nekkee ñi nga xam ne dañoo bokk ci ñuy animé foire bi chaque foire dañuy ñëw gis ko mu nekk ci stand yi di fecc di ko animé sénégalais yi bëgg ko lool nag soo gisee nit ñi dañ koy statut di ko snap parce que dañ ko bëgg Moustapha ñu ngi lay nuyu internet enquête 221. waaw maa ngi lay maa ngi Moustapha dañoo gis ne Sénégalais yi dañ la bëgg bu foor jotee gars yi dañ lay wër di la snap ñii di la snap ñii di la filmer ngay fi am dara ci foor non maa ngi leen di gërëm baax baax Amsatou Faye nag waaw soo fas yéene Amsatou Faye maa ngi di gërëm baax baax baax waaw maa di gërëm baax baax kay. est-ce que stand yi ne ñoo ngi leen fecc loo est ñu ngi lay jox dara. waaw ñu ngi may jox dara ñu ngi may xam rek yaa ma gën a xam quoi artiste artiste door mooy loolu mais yow après foire bi fan la ñi di si statut rek lañ lay man après foire ma ma maa si Thiat Seck ma Thiat Seck laa àndal waaw. lan ngay wax sénégalais yi lay seetaan fii ci Enquête 221. bon sénégalais maa leen di nuyu maa leen di sant waaw bu baax a Amazane Faye nag waaw waaw man la Moussa Faye nag bu nga xam ne tat moom numéro 2 waaw. waaw mayal mayal internaute dara mayal internaute dara. voilà kii kenn du ko présenté ñeneen ñëw xamee ngeen ko ci maire Diall sénégalais nee olof nga wala naar nga. Euh, salaamaaleykum wa rahmatulah bala may commencé damay nuy waa àdduna nuyu waa Sénégal di sant di leen gërëm aussi yéen tamit seen liggéey yu rafet yi ngeen def bon man nag euh, naar laa wala olof laa wala lan laa en tout cas séeréer laa gën a jege. eh bu ñu fotoole bu xees et puis da nga a fecc dégg olof. waa xam nga dama fee yàgg daanaka mën naan la fi laa ndax maa ngi juddoo boori xam nga parkin njar meew sedd ger neexi doom kuucuuj dànq seen ñurux eh, eh, xam nga dëkk bi ñii bi dëkk yooyu yëpp yëpp yëpp am naa fay maam moo tax olof yi moom faaw tubarkalla dama koy dégg. mais yéen ay xolamu foire ngeen bu foire bi jotee gars yi dañuy ñëw léegi nit ñi dañ daan ñëw bu njëkkoon di jënd léegi jëndatuñu yéen yéen a tax nit ñi di ñëw. bon xam nga ñun euh, àdduna boo bëggee bëggal suñ borom li ko ëppal solo mooy doomu aadama yi mu sàkk doomu aadama yi boo ci bëggee dab bànneex suñu borom da nga koy jaar ci ah, doomu aadama yi euh, te doomu aadama yi li nga leen mën a defal pour bëggal leen mooy jox leen ñu lekk ak bëggal leen dindi seen stress ñun nag bu comme mënuñu leen jox ñu lekk ñu leen di bëggal di dindi seen stress ci ñoom ànd ak suñu yaay mère Diall nekk ci am di ko sant bu baax ak ñooxit ak ami Kole di ànd ak ñoom ci liggéey bi vraiment dindi stress nit ñi daal moo ñu fi tax a indi ndax stress baaxul stress dina def siti gros bët feebar saa hypertension biir mi mi tooy lépp stress dafay def ci nit li gën a oyof ci li stress di def nit mooy hémorroïde loolu da koy def ci nit stress moo tax dañ fiy ñëw pour dindi stress waaw. waaw mais ñu ngi leen di jaajëfal ah. voilà di leen sant di leen gërëm. mais après foire bi aussi gars bëgg nañ di leen gis mais yéen kenn du leen gis. waaw euh, après foire bi dafa am ñu lu ñuy togg day am lu ñuy togg xam nga boo génnee chaque jour ngay génn da ngay late da ngay dem togg lu ñor xom loo boo ko génnee dina jëriñ askan wi et dina leen bégal. voilà mais noo leen gisee foire bi nag. waaw foire bi moom neex na wax dëgg yàlla tubaarkàlla macha allah neex na vraiment am na ambiance vraiment aussi macha allah daal yàlla def na ci xéewal nice daal lépp nice wax dëgg yàlla waaw. waaw maa ngi leen sant di gërëm vraiment kontaan naa trop yàlla na yàlla defal ñëpp jàmm barke Seydina Mohamed jërëjëf. voilà ba tey ci biir foire internationale de dakaar man maa leen di génneel ñi ngeen gëjoon gis Alioune Mbaye Sénégal namu nañ la Sénégal namu nañu waa dina ma neex ci loolee nekk. waaw ñi ngi sant bu baax di nuyu waa enquête enquête leen ma bu leen ma tëj enquête ñi ngi lay nuyu di rafetlu seen liggéey fii ci foire di wax ne nag Sénégal ñoo leen raw ñi ngi ñëw mais ça dépend ci producteur bi. voilà Alioune Mbaye Sénégalais dañ leen gëj gis sénégalais di laaj ana dina ma neex waa dina ma neex ana Alioune Mbaye ana Daaro ana Mounass ngeen jékki-jékki ba seeg rek am loo leen ñamal nit ñi daal di tas kon yéen ci instance yu mel nii rek leen nit ñi mën gis. dëgg la waa sénégalais yi dañu bëgg a gis ci dina ma neex mais ñu gis ci yeneen léegi nag producteur bi xëy na bu ko déggee les ak mezzo dinañ jub dina ma neex ñëwaat. ndax ah, nañu ñëw sénégalais nam nañ leen non ñu ngi ñëw voilà mais noonu gisee ambiance foire bi. waaw foire macha allah nga mën a liggéey fi ñu ngi nii di liggéey ak waa ñeneen feneen ñeneen feneen foire daal bu mu jeex neex na de. kon yaa ngi ciy gis sa boobu bu baax. waaw waaw foire rek. Aliou Mbaye foire ak avortement dina ma neex bu gën a neex. ah doy na waar dina ma neex ndax neexu dina ma neex wala ngaan ba ci mu neex. barke yeneen voilà kii la bu dina ma neex. ñun namoon ko trop. Sénégalais yi ñoom ngeen koy laajte. dama leen jox rendez-vous nag ku bëgg gis alin bay ñëwal fii ci foire stand Wally nga fekk ba Aline Mbaye. ñoo ngi fii ñoom si jàmm waaw dañu ñëwoon ci foire bi ñun ay jigéenu éleveur lañu bokk ci organisation bu mag bu tudd directoire des femmes en élevage senegal ñu ànd ceeg waa Oxfam ñi nga xam ne ONG lañu ñuy gunge jigéenu éleveurs yi ci jaay soow mi nga xam ne. mooy suñu soow local mooy suñu soow nag bi waa nit ñi ñu ngi ñëw mais wax dëgg yàlla foire bi daan na fi gën a neex kon ñoo ngi ñaan population bi képp koo xam ne daal bëgg nga ci suñuy produit ñoo ngi lay invité ci stade Oxfam yàlla def na samedi la ñuy def dégustation yi ñoo ngi ciy woo ñëpp. ñun borom buus yi dañoo bu daal suñu tere pour liggéey bu jàpp yóbbu lu am yóbbu kër ga. léegi gars yi gars yi gars yi maa seen biir ne ñu dagg ticket ñu dagg bas te du yoon ñu dagg bas yi te nañu jàppale ñu ñu parce que ay xale la ñuy jeune dañoo ay jeune di liggéey sàcc ñu fenn defuñu bon soxla ñu alal kenn ñafe lañu bëgg bas bu ñu imposé bu ñu dagg ko du yoon bu muy bu dee bëgg ñu liggéey dañ ñu defal ay ay ay ñu am ñu am liggéey am na booy bëri yoo xam ne dagguñu bas yi te du yoon dañu jàppale parce que ay jeune lañu dañoo bourgeois pour lu am ñu yóbbu kër ga bëgguñu alal kenn bu dul liggéey rek te jàpp si bàyyi ñu jàpp ñu liggéey teg ñu dëkkaloo dañu dëkkaloo ba si 7000 tey lii tey lii dafa métti poids bi waaw doxul gars yi liggéeyuñu amuñu xaalis bi liggéey dañu jàpp ñu liggéey ñoo sonn. voilà ba tey ñu ngi fii ci 27e bu foire international bu Dakar man ñii dama leen tuddee xoromu foire parce que tey nit dina ñëw foire sax ba jënd bañ ko tax a jóg mais gis leen yéen tax koo jóg dafa ci am bu mayaasi nag jàll. waaw maa ngi sama xarit kontantement di nuyu ñi nga xamante ñoo ñi seetaan di leen bëggee di am mbégte contentement di bëgg tey ci jàkkaarloo yow fi ci foire bi. waaw gis nga dafa am benn mbóot bu ngeen am ci biir foire bi da di xumbal foire mooy li nga wax rek xorom lañ ci biir foire bi parce que produit yi pour nit ñi xam leen ñu def seen communication bi war ñun dañ ci am part de responsabilité moo tax ñoom dañu koo xam ba bu foire jotee nga xamante ni occasion la boo xam rencontre la ñoom produit ñi profité jël comédiens yi nga xam nit ñi dañ leen di béggee ngir ñu mën ci bégal boobu ñu leen di béggee jaare fa jàllale suñuy message wane produit bi ndax nit ñi bëgg ko comme nu ñu bëggee moo tax produit itam dañ ci sawar di ñu woo kon xorom bi nga wax loolu dëgg la. mais est-ce que yéen ngi gis seen bopp ci loolu. waaw ñu ngi sant yàlla baax parce que ku ci am sa fula di nga gis sa bopp. parce que artiste moom da ngay am fulla rek ndax kii aw yor produit bi moom dafa bëgg a wane produit bi yow itam li nga yor yow sa jëm produit nga kon moom noonu mu amee fulla bëgg a wane produit am yow it noonu nga war a amee fulla war a mën a jaay sa produit kon yaakaar naa ku ci wane fulla ak fayda rek di ci mën a gis sa bopp. bu weesoo foire bi Sénégalais yi dafa am lu ñu namm ci yéen tàmm koo gis ngeen tàmmal leen ko mais ñu jege ba sàkk kenn gisatu leen. waaw mais fi ne nii nag ñu ngi ci togg yi parce que xam nga léeg liggéey ba ci yaa nga standby xoolaat xool yi baax xool yi ban xool li nga war a yokk xool li nga war a wàññi mais temps yi togg nañ lu graaw loo xamante ni yaakaar naa ni sax def nañ première bi 30 épisodes yi ba pare incha allah tour bi surprise lay doon dañ leen jox di daje rek ngeen koj ko incha allah ñu ngi ci démarche yi léegi rek ngeen gisaat ñu ci yeneen facette incha allah. mais sa yaay mère Diall ñun daf ñoo réer ci biir foire bi anamu. day wër rek mère boobu. moo ko lay xam ne dañuy wër rek. <laughs> merci Tapha Thiam voilà comme ni nga xamante ne noonu ngeen ko gisee ñu ñëwoon tey fii ci foire international bu Dakar 27e édition bi mu nekk foire boo xamante ne Tapha Thiam da ngeen li mu wax léegi rencontre la rencontre la tey gis nañ fi lépp am na ay dëkk yu fi ñëw xëy na lu tuuti lañ leen ci ñamal am na leneen loo xamante ne dinañ ko defal daal di koy gën a yaatal mais li nga xamante ne moom moo ci ëpp solo moom nga xamante ne dañ leen di bégal ñuy jéglek leen di gëj a gis ñooy dañuy nekk retrouvaille fii ci foire bi da ngay gis ni day ñëw sax jënd produit taxu ko jóg mais ñëw xool ambiance bi am ci foire bi moom moo koy yëkkati moo tax tey ñu ñëw focaliser wu uniquement ci ambiance su foire am tuuti lu leen ci ñamal ñu leen di jox dig daje ba beneen yoon ñu dellusiwaat indi leen intégralement li nga xamante ne moom moo am ci foire bi enquête 221 la ak seen xarit Amina Paye pare guñu ak yéen dañuy doog a door enquête 221 le chemin de l'information on vous remercie.